yàqu yi la yooyee di vaccination yo waaw est-ce que baax na looloo jar a laaj termine yéene ci ajo la daal di koy suspendre moom AstraZeneca gi maar day taale fii Sénégal ah laaj la laaj la de parce que nag am na ci ay réew Europe yu bëri yoo xam ne day daal dinañ koy dakal moom ñax boobee ah waaw parce que nag ginnaaw Danemark gële ak Irlande ak Islande ak Norvège ak Bulgarie waaw jàppal ne waa France day daal dinañ koy dakal waa Italie ak waa Espagne ga nee nañ suspendre AstraZeneca googee waaw daal dinay féewale adduna bi day divisé na monde ba le quotidien yéene kaa ci boppam kon moo bari na ca garab googee baax na wala baaxul laa la wax laas dëgg la de en tout cas jëfandikoom googee werante ga bari na ci ay réew yu bëree ci Europe gee daal dinañ koy dakal laa la wax waaye professeur Tandakha Ndiaye Dièye ci la solo yéene waaw nee na il faut ñu daal di continuer vaccination gi lée ak AstraZeneca ga professeur Tandakha Ndiaye de dëgg la ci critique yéene kaay en tout cas ñun daal Sénégal mu tey amul benn jaxasoo di ambiguïté boo xam ne kon am na ca docteur Mamadou Ndiaye ci la ko jëlee yéen a kaay waaw nee na ñun daal suñu bos amul benn problème ba fii may wax ak yéen laa la wax lu ci ji di corona day mi ngi continuer di rey ba léegi ni laa la wax maar di taali waaw waaw parce lu doole fukki doomu aadama ak juróom la rey démb allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne la 15 décès ci benn fa donc am na ci ñeent fukk ak ñeent ci ay kaa garaaw ñi ngi ci Quotidien moo tax it wootewu Seydina Limaamu Laay gi day waaw bi tombee korona gi lée Chérif Abdoulaye Thiaw Laay xalif la mu sàkku ca taalibe day mooy ku nekk na toog sa defee ko faax da leen a waaw ca jamono jooje terminé yéene kaay nee na nees def nag ba ci biir réew mi di continuer ñi nga xam ne kon politique tax ñu teg leen loxo ñu daal di leen fay génne ginnaaw manifestation yooyee kilifa diine yi ñu ngi surveiller président Macky Sall la wax may exemple Guy Marius Sagna ak ña mu àndal dara taxul ñu jàpp leen lu dul am njortu gu ñaaw ca ñoom njortu gu ñaaw rek soupçonné looloo taxoon ñu jàpp ay ñoom Guy Marius Sagna waa lii luy ndeem critique yéene kaa ne Touba kay jël nañ nguur ga Touba prend le pouvoir ndaw yi nga xam ne nag xalifa Touba googee moo leen yónni daay bi nga xam ne maara day taali moo naroon a lakk ci week bi lée ñoo ñee fay nañ ko de dëgg la parce que nag ñoom ñoo tax kon ba M2D yi nga xam ne ko naroon nañ koo am le témoin Abdoul Aziz Sy Dabakh bu bees baa ngi nii lé yegg na Sénégal Serigne Mountakha égal Dabakh Malick alhamdulilah moom Mbacké Balla Issa jàmm lañ ko nampatale muy rataxal rek te daayiwu ca benn yoon dëgg la kii mooy fay lakk yi nga xam ne mooy jolli pompier social baa ngi nii lé Mbacké Balla Issa kii daal mooy ku tabe kii mooy jàppale doomu aadama yi loxo ci poos souteneur financier généreux Mbacké Balla Issa xalif général murid ya day waaw mooy autorité morale bi nga xam ne moom la sénégalais yëpp doon ñaan yàlla yàlla wàccee ko ci réew mi ne Mbacké Balla Issa lii lañ doon ñaan yàlla te yàlla may leen ko mbake balay sal évidence yéene kaay ne coow li fa mu toll woon di tension sociale bi ak soulèvement populaire ba waaw mais num Serigne Abdou Mbacké bu daaru muxti Serigne Ousmane Sonko ba ma ne la moo gisoon lii di dikk jug wax ca kaw yeggee ko Serigne Mountakha wax ak journaliste yi la ginnaaw gi nag la ñenn ñi kon bëgg a def ay mbirum récupération politique waaye coow li coow li bu dee am na kenn koo xam na jaajëfal yeyool de dañuy yokk rek maar di taali waaw waaw te gis nga ca 2012 waaw mais nit ñi dañ ne woon alternance politique la ñu bëgg bëggatu ñoo gis ay bakkan yu rot 2021 ay bakkan rotaat na ba ëpp kay fukk ak ñett laa lay wax nii waatagum nañ maar di taali critique yéene kaa ne en tout cas APR Dakar day ci ginnaaw Abdoulaye Diouf waaw ñoom tam nee dañoo fas yéene xeex de ngir jàppale président Macky Sall ca diwaanu Kaffrine ak ñoom Abdoulaye day xammee nañu ànd ak mooma ah. dama ne la ministre yeeg DG yi député yi laa lay wax nii waaw photo profilu Macky Sall ba day dañu koo dindi ci seeni WhatsApp laa la wax demal ca Touba Gale responsable APR yëpp ca booba Cheikh Abdou Gaynde Fatma ñoom ñëpp di pat la wax ñoom Serigne Modou Bousso Dieng day ak Cheikh Ndiaye ñoo fa nekkoon di bur di bum di bumi ñooñu dee xanaa jox nañu dëgg tey Moustapha Cissé Lo wax ne bu dul moom Touba kenn xeexu fa ak opposition bés ba moom nee na Fatoumata Tall daa daw laqatu ana ndaw koseer yi ana ndaw maire yi ak yi bi riir mi jolle yéeni kaay Pape Diogoye Faye bi ne Babacar Cissé Ndiaye day waaw nee ñi nga xam ne Macky Sall da leen a jokkoon ay ndomba tànk waaw buñ ko mënulee défendre mais nañu bàyyi les écoles yéene kaay ne en tout cas bi day ajuma ji ñu génn waaw daje nañoo président Macky Sall waaye wax na leen nag ñetti dëggam nee leen man en tant njiitum réew damaa mënul a dëgër kër këc te li ma bëgg nag mooy ngeen arrêté seen wax ji la te ñu booloo liggéey parce que man mosuma wax ne damay am troisième mandat da nga ñeme président Macky Sall yamu ca dee ndaxte nee dama ne justice bu convoqué am ni kookee daa war a dem wuy ji lu jëm nag ci wàllum Karim Wade Khalifa Sall mi lay waaw mais d'accord naa ñu waxtaanee ko sur quotidien ne Macky Sall day ñaari karkanam la yor ne ah waaw daa génnee yat yu teg ni la génnee carotte yu teg ne ah waaw Sall ne wàllum couvre-feu bi de léegi minuit la cinq heures du matin na nooy ñu ne déet ni waay ne état d'urgence sanitaire bi le 19 mars bii di ñëw day dak ne na nooy waaye ca jamono jooje Macky Sall li Antoine Diome waxoon ca la maanaam xale yi ba léegi ne la ñu ngi leen denc ci kaso bi te Antoine Diome dane woon ñi nga xam ne ñoo doon manifester ko toj danañ leen wër jàpp leen teg ci yoon laa la wax te Macky Sall ci loolee la nekk ba léegi ne la te pourtant système ay seex de waaw waaye léegi Ousmane Sonko daal ba ci lii ak léegi ni lé sañ sa olof bi rek alkaali Diouf professeur la en marketing ak communication politique waaw nee na njiital Pastef dafa bëgg a wan waa Sénégal gi lée ne leen man maa yéen yéenay man kon nag ñoo bokk lu ñuy wax ñoo bokk lu ñuy lakk eh na nooy rek les écoles yéene kaa ne nguuru Sénégal ga day porte plainte ne na ngir wàllum terrorisme kon ak menace de mort Ousmane Tounkara wàllum harcèlement sexuel yi nga xam ne nag moo am ci bërëbu liggéeykaay yi waaw mais am na ñoo xam ne ñu ngi ci yi lée di kil jamono ab mi lée nee na des ma tas ndax benn cabinet avocat bi ma nekkoon benn avocat bu ma doon harcelé di ma harcelé ba ma nar a tas sama sëy ba laa la wax mais na ngi ni lée nee la man sama directeur de publication waaw daanaka damaa mujj bàyyi mujj koo jox sama bopp saa bu ko neexee jëfandikoo ma <laughs> milliards yu ay millions la ñu fa sàcc laa la wax la ilaha ay agents yu bare bëri ak ay chef de département lañ ci tudd de ay signature yu ñu toppandoo ay bordereau yoo xam ne trafiqué cent vingt six millions yoo xam ne dañuy may te yàlla ndaw xaalis bu bëri waaye nag xaalis bii dee ca chambre de commerce ñu sàcc ko ak lu mu bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri du gën a bëri xaalisu pétrole bi de moo tax suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la